élection présidentielle 2024 bareetul waaye nag ba léegi njiitu réew Sénégal président Macky Sall tabagul kandidaawam donte ne sax ñoo ngay nemmeeku ay déclaration de candidature yu bëri ci biir coalition benn Bokk Yaakaar bile yoon nag mouvement bii di ànd liggéey Sénégal moo daal di woo leaderam di Mamadou Racine Sy mu déclaré candidature am. Mamadou Racine niñ ko xamee ni mu nekkee capitaine d'industrie jigéen ñu alsaar góor yi alsaar troisième âge alsaar ñëpp man koo doon benn ñaan président Mamadou Racine Sy mu dimbale ñu mu doon candidat élection présidentielle 2024. Alsaax daal dina justifier bi les choix mi nga xamante ne teg nañ ko ci maire commune bu Podor. nécessité la demande sociale la comme ni ñu wax rek Mamadou Racine mi ngi ci jàkka yi. Mamadou Racine mi ngi ci hôpitaux yi Mamadou Racine mi ngi ci financement femme yi Mamadou Racine mi ngi jàppale ñun gis nañ suñu bopp ci li Mamadou Racine di def loolu moo tax ñu di ko ñaan bu mu présenté wu. ngir bi bile candidature mën a antu bile mouvement daal dina annoncé plan d'action bu weesoo déclaration bi euh, dès la semaine prochaine ñu daje sali ak sunu ay responsable au niveau national ak sunu ay responsable au niveau diaspora pour jéem a discuter sur les voies et moyens yi nga xamante ni yu ñuy dimbale pour ñu atteindre sunu mébét bi donte ne al alsaax daal dina jël bile dogal waaye nag terewul ba léegi bile mouvement mu ngi yeesalaat rekk nekkam ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar loolu waxal ñoo ngay woo ñëpp ñi nga xamante ne ñoo bokk ci bile coalition présidentielle ñu toog waxtaan ngir rekk ñu mën a tàbb benn candidat mi nga xamante ne ñëpp dinañ topp ci ginnaawam ci élection février 2024 yi ñu dëgmal